Euh, ni nga ànd ak yéen ci seen euh, émission tawféex di fàttali bu baax nu bàyyi xel màggal gi nga xamante ni teeru na incha allah ni ko cheikhul xadim waxee ci ay abyaat shukru ilahi xaana fi turaabi baada jamili sabri fi ightiraabi kon sant googu muy sant sunu borom subhaanahu wa taala woo si mboolem jullit mboolem taalibe kon loolu lañ ko bàyyi xel bu baax a baax àndale ko ci xam ni sant googu muy sant sunu borom subhaanahu wa taala lépp dafa bëgg nu teg ko ci sunna lépp dafa bëgg nu teg ko sunna ndax taadimuhu bi sunna yaquuduna lil janna loolu rek moo ci am solo eh, sax ci jaamu yàlla jàng alquran jàng ay qasida ak berne ni ko sëriñ bi diglee kon mbokki taalibe ni ngi leen koy fàttali nu bàyyi ko xel bu baax a baax waaj ko ci weer wi nga xamante ni ku ne xam na ni buñ ko tuddee weeru cheikhul xadim la ngir liggéey yu am solo yi nga xam ne def na ko ci tukkeem bu rëy boobu nga xamante ni ci la waxee woon ijaar rujuuci ila qawmi saadatana wal ma yowma jamil xalqi niiraana yow sunu boroom na nga def sama dellu ci sama réew di sunu texe waaye bu ëllëgee nag nu fegal booy daj booy dajale mbooleem ñi nga xamante ni mooy nit ñi sama nit na nga leen musal ci li nga xamante ni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 bésub sëriñ bu mag bi gaay yi jub si na waajal ko jot na sëkk ndax moom yegsi na fukki fan ak juróom ñett ci safar mooy bés bu mag boobee waral ñéppi safar